ilaha illallah la ilaha illallah salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk jullit yi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen woo ci suñu gàmm gu mag bi ñuy amal samedi le 13 novembre 2021 gàmm gi nag ren moo nekk huitième édition ñu ciy ànd ak suñu sëriñ Baye Amadou Camara muy amee fii si Jaxaay 2 après 70 bi en face terrain basket bi ki xaye nag mooy soppe Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne Baay wax na ne fa in tasxalani xan xabibihi wa saydihi fata xabibullahi ma xayr ma wa ma buñ ma laajee kan laa bëgg wala kan moo nekk sama sang danaa wax ne mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bés bi nag programme bi nii la tëddee huit heures dinañ fa jàng alquranul karim ginnaaw loolu dinañ def don de sang ak consultation gratuite ci journée médical boobu ñoo ngi ciy woo monsieur le ministre monsieur Diouf Sarr ministre de la santé ñu ngi ciy woo sunu médecin chef du district de sangal Sangalkam monsieur El Hadj Malick Diouf di ci woo l'équipe cadre du district di ci woo sunu ICP ñoo ngi ciy woo sunu président des acteurs communautaire national monsieur Baytiir tàkkusaan dinañ dajaloo ñun ñëpp jëli suñu sëriñ bi nga xam ni mooy Baye Ousmane Dieng di bàyyeekoo ba Kaolack vingt une heure mooy mise en place invité yi vingt deux heures ci la sikar di commencé bis bi nag ñu ngi siy woo Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass xalifa Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ñu si woo tamit Cheikh Mouhamadul Maalin Cissé partu parole de faydatul Ibrahimiya di si woo imaamul akbar Cheikh Tidiane imam Alin Cissé di si woo tamit waa njabooti Corna Assane Dem yëpp ñu ngi woo tamit waa alxusmaan yi yëpp. bés bi dafa am ñi nga xam ni ñoom lañ ko tuddee ku ci mel ni Cheikh Abdourahim Ibrahim Niass maam El Hadj Mountakha Baye Daouda Diallo Fass Mbao Cheikh Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axla bis bi la ko gën a alaa daw mel daa jël bis bi duppee ko Cheikh Abdou Karim borom makaarimal axla moom sëñ Fallou mëcca ndindi kon de bis bii murit laayeen tiijaan xaadir ñëpp dinañ ci gis seen bopp ñun nag Cheikh Abdou Lahat amoon na lu nu waxoon ku jëfal sëñ Touba muridu ñoo lay fay ku jëfal muridi sëñ Touba lay fay kan la jëfal Cheikh Abdou Karim Mbacke doomi sëñ Fallou gi moom la jël bis bi def ko parrain d'honneur bi kon na ko ñëpp murit mbay ñu ngi woo ci bis bi. mboolem kuy tuddkat yàlla rek ñu ngi la ciy woo di ci jiital ki nga xamante ne mooy taxawee jotaay bi. Baye Ngom di ci teg Aïda Faye Cheikh Ibrahima Ndaw Cheikh Mouhamed Ndaw Ali Diané ak mboolem kuy tuddkat yàlla ci pays bi rek. amin nodda mon e noddago gandanɗa hoorema kala e saaha komin noddannoɓe ɗum hono gammu mawlana baye amadou camara ɗo e sénégal ɗo e jaahay donc min noddi mauritan naaɓe min ñu noddi mboolem kala bi ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah ñu yokkaat suñu laxasaay yaatal gan ñi fiy ñëw togg yi teel macha allah soxna yëpp mën a teel a génn ñu fekk sëñ Baye am ci baas bi. gàmm gii rek moo am ñi nga xam ne bokkuñoo ñoom diine di jël seen alal di def ci gàmm gi gàmm gii rek moo am ñi nga xam ne dañu naan gàmm bidaa la ñooy jënd nag def ci gàmm gi. ñoo ngi ciy woo ñëpp di ci woo ki nga xamante ni tabaarakallahu kenn la ci Baye Amadou Camara bëgg ko lool jël léppam jox ko. muy Thierno Amadou Ba ngeen gën koo xam ci douane macha allahu taala waaye di ci woo responsable politique bu mag boobu nga xam ne mooy Maodo Kassé nga xam ne kenn mënu ko ci bis bi waaye di ci woo Serigne Mara Thioub nga xam ne moom it kenn mënu ko ci bis bi. di ci woo tabarakallahu Serigne Cheikh Omar kan mu président fondation Miroir de l'Islam ñu ngi ko ci woo di woo soxnaam su baax soosu soxna Ummul Xayri si. mi nga xam ne mooy doget ci Serigne Moustapha Sy mu Serigne Cheikh mu Serigne Babacar mu Seydi Hadji Malick bés bi dafa am ñi nga xam ni ñoom lañ ko tuddee ku ci mel ni monsieur Abdou Karim Fafana ministre du plan Sénégal émergent monsieur Amadou Hott ministre de l'économie du plan de la coopération monsieur le président Bougane Gueye Dany président du mouvement Gëm sa bopp monsieur Mor Sarba maire de la commune de Jaxaay monsieur Aly Niang monsieur Eumeu Sène monsieur Pape Demba Bitèye directeur général Sénélec monsieur Boubacar Mbodj ministre conseil madame Ndeye Saly Diop Dieng ministre de la femme de la famille et du genre madame Maguette Diop présidente du mouvement Yaay Kan madame maam Diarra madame Dieng Ndiaye. di ci wooy itam ki nga xamante ni moom mooy commissaire di Youssou Ndong mu nekk ku baax nekk koo xam ne tabaarakallaahu daa bëgg Baye Amadou kamara waaye noonu lañ ciy woowee ki nga xamante ni mooy sous-préfet monsieur Sadj Wadd di ci woo mbooleem ku yaakaar sayduna muhammadin alayhi salaatu wa salaam lakum minni alxubbu wa duaa dawman wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. daayiratul fadli kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lañ ci jël kese loo doon si di baram